bu ñëwee duñ ko wote léegi Macky bëgg na Ousmane Sonko nekk candidat waaye waa benn bokk yaakaar ak waa taxaw ak ñenn ñi nga xamante ne opposition bëgguñu Ousmane Sonko nekk candidat parce que bu nekk candidat leen di gagné facilement mu nekkaat beneen ka encore bu war a ñëw te Ousmane Sonko bu amul am na si dossier Mame Mbaye Niang bi du mën a nekk candidat fii ak 5 léegi mu des si diggante maanaam maam jóg ak Amadou Ba Amadou Ba la Macky Sall wax ni moom mooy nekk candidat waaye li mu xalaat mooy comme Amadou Ba député la woon daf koy delloo assemblée national jël maam Diop yóbbu primature nga xamante ni moom bu nekkee ba le 2 avril as Amadou Ba automatiquement day nekk maanaam président la république pour mën a yor intérim bi 3 pour mën a amaat dëgëra ak taxawaay pour candidat mën a taxaw. beneen bi mooy li nga xamante ne jar na réel senegal yi mooy Macky sàll bu fekkente le 2 avril bàyyi na bu amee benn candidat boo xamante ni tey jii si ñoom ñooñu président Assemblée nationale jël na intérim pendant 3 mois souvent Macky Sall day sañ sa amaat sañ-sañu bokkaat ci élection yi ñëwaat parce que am na ku dox seen diggante ba pare. que dégg ngeen wax. bu fekkente ni Macky Sall dafa dem ba le 2 avril mu démissionné wala mu bàyyi parce que day am ngant parce que conseil dafa ni président la bu dee wala bu amee ngant assemblée nationale moo koy remplacé président assemblée nationale boobu noonu mi ngi ciy xalaat ku ñuy wax Amadou Ba waaye am na ñu taxaw lànk parce que Mame Diop dafa gën a jege Marème Faye Sall ak famille Macky Sall moom la ñuy maintenir mu ngir mu yore bi bu demee ba affaire bi jeex mais bu jeexee ba Mame Diop nekk cinquième président de la république parce que moom lay doon. su boobaa Macky Sall am na ko dox si diggante bi bu ko neexee mën naa posé waat candidature si élection yi ñëwaat ci trois mois yi kon réew mi jógagul si jógagul si ay coow ak ay coona ak ay jafe-jafe kon il faut ñu intelligent léegi nag man la ma gëm mooy bu ànd amul booloo amul duñ fi jëlee Macky Sall ak régime bi mais opposition bi ñoom ñooy seen noon seen biir Macky Sall du suñu noon de opposition bi ñooy seen noon seen biir parce que da ngay gis nit koo xamante ni mois de mars 2021 ba ñu rey fukki nit ak ñeent dafa bokkoon ci nguuru Macky Sall bokkoon ci ñi rey nit ñooñu man ak Ousmane Sonko ay Mbodj ñu dem def signé de pacte de na ci ñi faatu woon foofu ba Ousmane Sonko daana fa malaise man mi ci laa bokkoon ci ñu demoon tey bu hélicoptère ba dee woon ñu daanu woon ñëpp dañuy faatu tey jii ki bokkoon si nguuru Macky sàll tey moo ñëw bëgg a diriger opposition yi wan ni moom ku seet la kon Sénégal am na problème ñu nekkoon si opposition bi di xeex ba fi may wax a yow jamono boobu ba fi may wax a yow ñu leen di tuumaal neen yéen da ngeen a jege Macky Sall aska wi du ko gëm wala ñenn ci askan di ko gëm parce que intere intérêt boobu kon Sénégal am na problème man. opposition laa bokk républicain nekk sët sëriñ Touba du ma toj du ma tojlu wóotuwuma aw ay parce que sëriñ taxaa moo ma wax ni ma foo nekk nekk fu woote fa jàmm parce que jàmm laa soxla ci réew mi kon di félicité ñi nga xam ay kilifa diine lan muy waa Laayeen Tiwaawoon ak waa Muridi ak ñëpp ñoo xam ñu ngi jóg pour woote jàmm ak dal ci réew mi man bu ma nee leen kaay leen dem xeexi te sama ñaar doom yi nga xamante ni ay mag la yóbbu naa li ñu dem jàngi nekkuñu Sénégal de sama jabar nekkul Sénégal kenn kaa ngay liggéey doo leen gis ci manifestation may gën doomu jàmbur yi war ngeen xoolaat ñi nga xamante ni ñooy jigéen ñan la kon seen bopp. parce que ku leen di génn loo ma nga bàyyi jabaram bàyyi ay doomam te bu nguur ñëwee moo koy lekk ana ñu doon xeexal Macky Sall tey ñoo gën tum ñii ñiy xeexal opposition bi jamono yii bu jëlee réew mi. ñoom ñooy saagawaat opposition yi parce que su boobaa maanaam moom opposition da leen di seetaan te ku si dee yaay perte comme conseil constitutionnel joxe na dëgg pour Sénégal na Sénégal ànd ak dal tañ ànd suñu xel mën a réfléchir bu baax bala ñoo tàbbi si pied si Macky Sall tànd démissionné kenn ñëw si diggante bi mu ñëw laajaat wala ba ñu organiser feeg le 2 avril loolu lépp mu ngi suñuy loxo. dinaa ñaawlu nag taxawaayu yenn ñi nga xam dañuy tudd seen bopp ay journaliste duñuy journaliste réew moo xamante ni am na liberté boo xam bu ñu demee tey ba ay nit di taxaw naa dañuy taxawal benn kuréel boo xamante ni tey kenn ku nekk sa intérêt bopp tax ngay wax yaa am problème te ñoo ñu taxawal kuréel kuréel yooyu chroniqueurs yi am na si ñoo xamante ni Antoine Diome recevoir na leen fan yee si ginnaaw almadi si benn appartement lam leen jox xam naa te ñu ngi si télévision yi di xas nguur gi te bokkoon nañ si ñu doon def point de presse barki démb kon il y nañuy wax askan wi dëgg nañuy wax askan wi dëgg te bañ a manipuler askan wi parce que man mii di wax ak yéen ginnaaw bu ma jotoon ndigal xalifa général des mourides bi ma seetee Macky Sall jóge fa seeti Ousmane sonk am na benn député boo xamante ni mooy ki dàq fenn ci réew mi dem na Paris wax ku ñuy wax Akhenaton ni ko Cheikh Abdou Bara Dolly Macky Sall moo ko yabal mu dem seeti Ousmane Sonko pour ñu génn ko yóbbu ko Maroc mu dem faju ci kooku day dugg leer na kon day fet kon day kàcc kon day kësëb xam nga kësëb naar la arab la te boo ko waxee ñuy dir waay sëñ bi mais kësëb mooy fen mooy duur rek kas waaw kon day manti ah voilà léegi français boo ko waxee boo waxee français ñu ni français bi moo gën nga wax arabe ñu ne arabe bi tey boo waxee olof jaas digg bi ñu ne déedéet kon olof baaxul te man olof laa dégg loolu moo tax ma ni ñoom ñëpp ay miniplate la ñuy doon te loolu seen intérêt bopp la ñuy wax man bi ma seetee Ousmane sonk wax boobu génn fa te avocat bi nekk na sama témoin te ba ma génnee ñëwaat sama bureau ci la ma xel fi sànqal mu woo téléphone. ma jottali ko la ma Ousmane Sonko wax toog jàpp sama bopp loolu si la ñoom Atepa di continuer dox ba tey jii may wax ak yow ban libéré nit ñi est-ce que tey ku ne woon ay nit danañu jóg di xeex di xeex ban libéré ñi kenn du ko gëm kon ku ne xam na ni waxtaan moo mën a génn Sénégal si jafe-jafe ak ñu ngi kenn si kaso kon waxtaan moom lañ war a jiital te Ousmane sonk pare na pour waxtaan waaye laajul dara ndax njabootu Ousmane Sonko ak ay doomam ay jabaram ak yaayam soxla na Ousmane Sonko ci wetam ak man mii di mbokkam man bokkuma moom parti bokkuñu coalition mënumaa jariñ mënumaa lor gënumaa siiw te candidat la ma nekk candidat ba may nekk député la nekk député ba may siiw siiwagul te maa ko ëpp alal te sintuwaay sama maam leer na kooku lan laay dabu si moom àndum nawle mu nekk sama mbokkum deret ñu bokkum maam ay nit war koo taxawu ñu bokkal ma bokk si nit ñooñu war koo taxaw ay nit yoo xamante nee nañu maanam dañoo bëgg bokk ak moom parti wala wala bëgg si moom am si moom bës tax ñuy wax loo xam ne du dëgg Ousmane Sonko sant leen taxaw di wax si presse bi ci ñoom ñooñu amoo si ndigalu Ousmane Sonko waxul kenn dara si ñoom lam wax ma koy wax avocat ak ñenn ñi Macky Sall yónni woon ak famille waaye demandul dara tuuñu tamit ban koy amnistie amnistie bi loolu leer na kon am na si bi du am ci mbirum crime mois de mars 2021 ba 2023 parce que buñ ko defee laalaal si nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar léegi li nga xam mooy condamnation si mois bi nag nan la ñuy def kooku xaw ma lu dul bu fekkente ne nii dem nañu dialogue muy consultation ñu ne képp koo xamante ne amoon nga condamnation sursis ci mbirum politique wala déformation dan lay baal comme nit baale woon xalifa sax da nga mën a bokk ci élection yi code électoral gi indi ko suba mën naa bokkaat mais loolu waxtaan a ko mën a indi kon waxtaan ubbi ko na Macky Sall ngi tam la recevoir démb dana recevoir tey ba semaine bi Ousmane Sonko semaine prochaine dana génn incha la kon loolu mooy li nga xamante ni moom la moom la moom laa ne woon naa woot waxtaan ak yéen di wax ne ñun ku ñu gis ci dëgg ci ñu war a gis ku ñu gis safaan war nga ñoo yedd parce que ñaari ndomb lañ yore te ñaari ndomb yooyu du ñu jaawale ndomb bi nga xamante ni du jeex bu mukk muy ndomb bi ñu Sëñ Tuubaa jagal moo tax bokkuma ak ñenn ñi taxawaay nañuy wax dëgg ci réew mi nañuy wax jàmm ci réew mi nañuy bàyyi sos yi parce que sos yi dafa bari ak nëbbu xel yu askan wi te la ngay def ci suuf doo ko wax te am na ay nit yoo xamante ni élection législative yi passé Antoine jox na leen fukki million ak juróom ñu bokk ci Pastef ni woon dañuy démissionné dëkk Touba ñu lekk xaalis ba bi leen tëjee si kase ma leen génne bi ma àndee ak Ousmane Sonko sama oto kooku mi ngi wax ak Antoine Diome te Antoine moom wax loolu te ton kooku bi ma koy génne ci kaso bi ku ma gisoon may dem bureau Antoine da nga defe ne damay dem pour seet Antoine pour sama bopp fekk ni kooku moom fa ko jàppee maa dem fi nga xamante ni mooy si police bi une heure du matin fa la ma fekk man ak maître Moussa Sarr ñoo fa nekk ndaw woon may woo Ismaïla Madior Fall ba mu ngi ministre de la justice di woo Amadou Ba pour ñu bàyyi ko man maa dox ban bàyyi ko Baara Ndiaye mii bi ñu ko jàppee am na ku ma fekkoon ci chroniqueur ku doon wax naa da doon jooy c'est vrai man maa wax ban bàyyi ko ak sëñ Bass Abdou Khadre maa yoro ñaari téléphone yooyu benn bi di wax ak si benn téléphone bi Ismaïla Madior Fall benn may wax ak Amadou Ba ngir ñu bàyyi ko lam lekk këram maa ko jox ba pare yónnee ak dépasse këram te na ma ko defalee na laa ko defalee ñeneen ak ñeneen muy Pape Ndiaye muy Pape Alé Niang muy Sine Saliou Guèye kenn ku nekk def naa ko si yow kon mu leer na li man nekkuma fi pour ni dama nekk pour sëñ Tuubaa laa nekk lu baax li may def yàlla seet na ni nit ñi xamuñu ko te lu baax loolu may def ci la ay nit yoo xamante ne dañ si përifutoo buñ ma gisee ma dem si kenn pour topp too lu baax ñu ne Cheikh dafa jege nit ba ci Amadou Ba mi nga xam sama xarit la dem nañ ci Ousmane Sonko ne ko Cheikh Abdou Badol day wax ak Macky Sall moytu ko ñi ko wax ñan la mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp ni si Pastef lañ bokk wala dañoo bokk si coalition te fekk ni man ku ma gis may dox foofu seeni soxla ñoom askan yoo tax ñu may dox mais man ñàkkuma dara man Sëñ Tuubaa teral na ba noppi man bu fi Macky nekkaatoon cinquante ans du tey may dudd may dund ku mën a xeex Macky Sall fukki at ñaar rawat na opposition bu jëdu kutu nguur kon nañu bàyyi seen sos yu metti yi ñuy sos nit ñi nañu bàyyi fen yi ñuy feneen askan wi nañuy wax dëgg am na si ñoo xam ne sax bu seen téléphone wax dañu ne Macky moo ko dal loolu du fen téléphone bu da fekk ma fii Macky Sall day ngelaw wala day yàlla ba mën a daanam téléphone wala micro loolu mooy li nga xam mooy démentir démentir nit ñi te nit ñi buñ koy wax da yéen da ngeen di jàpp ni ay kaf la fekk ni kooku la muy wax pour que gën a bañ loo nit ñi Macky Sall lay doon man Macky Sall li ma teg si victime tegu ko kenn tëj na ma kaso te sama entreprise nangu samay kër tax sama doom feebar nekk hôpital fi may wax a yow raakool lay lekke pendant deux cent mi ngi lalu hôpital États-Unis Macky Sall moo teg loolu est-ce que tax na ma bañ a tudd Cheikh Abdou sant Mbacke sëñ Tuubaa sama maam may dund oto yu ma gaari ñaar ñett oto yi 200 millions la maa ko jënd kon man lan laa nam man faalewuma Macky Sall faalewuma keneen sëñ Tuubaa laa gëm loolu moo tax yéen sénégalais yi yéen presse bi ma ne naa leen woo pour wax leen sama position ak fi ma nekk incha allah ba élection dee am maanaam ci li nga xamante ni mooy fii ak le 2 avril dinaa seet candidat bi ñu jàpp ni mooy bi gën bu fekkente ne ubbi wootoon ma ànd ak moom jële fi régime Macky Sall mooy li loolu laa gëm parce que bëgguma continuation parce que askan wi nañ ci li nga xamante ni mooy li leen Macky teg bu fekkente ne dañoo dàq élection yi ba nga xamante ni maam tey Macky Sall mooy continuer ne fi ba le ñu tëggaat élection yi suba damay nekkaat candidat di ñaawlu te taxawaayu ministre bi nga xamante ni mooy Bakar Bocar Moussa Thiam ci jëfam ju ñaaw ji muy jëf jëme ko ci presse bi ci jëfam ju ñaaw ji muy jëf jëme ko ci maanaam doomu daara yi ba ci man ak sëriñ Mbuub même naan ñun waruñoo nekk candidat parce que ay doomu daara la c'est ont en tant que ministre de la République ñun ñoo yor li gën ñun ñoo yor li gën a baax ku tabax bëgg tabax nit tabax ko sensé réew yow ñu ne yow waroo koo def parce que yow doomu daara nga doomu daara bokku ci réew mi te 85 pour cent ñun dégguñu tubaab moo tax consultation bi dañu ñu dem pour que ñu mudd fee article 28 boobu ñuy wax parce que tey mënu ma nangu tey ñu jël langue tubaab bëgg ni ku jàggul tubaab doo mën a jiite réew mi te 85 pour cent dégguñu tubaab kooku yaakaar naa ne saaga population bi la sëriñ buub li mu fi def ñoom defuñu ko man li mu fi def waxi nopp léegi bu fekkente ne tey dekka naa candidat ba jàll parrainage da nga gis benn candidature bu jóg ku si mel dof boobu avocat boobu Maître El Hadji Diouf ah mi Cheikh Abdoulaye c'est dof boo xamante ni buy wax gémmiñ ngi fuur xamul li muy wax lu mu doon Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye nga xam daa bañ Sonko ba nga buy wax maanaam ba ñu sax du kooku nan lay taxaw naan Cheikh Abdoulaye Diouf déggu déggu tubaab déggu tubaab moom est que ñuy bi ñuy fal pap baayam kanto fële ne la déggoon na tubaab nan bàyyi arrêté loolu man sama maam dafa xew tubaab ban génne ko yóbbu ko Gabon man damay xeex ba bañ ba dee man lii ma bëgg mooy doomu daara daan ko jox cëram ci réew mi parce que mën ñu nangu 18 millions habitants fukki millions yi ak ñett yëpp dégguñu français ñu ne léegi yow kat ñi nga xaman dégguñu tubaab yow kii déggu tubaab yàlla war a jiite kooku ku ko wax da ngay wax loo xamante ne si Anta Diop bu doon dund da laa war a rey moo tax tey maa ngi wax doomu daar yëpp képp ku ko mën te bëgg ko bu ñu ubbiwaatee pour déposer pour nga nekk candidat nga déposer nekkaan candidat parce que ñun ñii kese ñoo mën a sensé réew mi te li si kanam rawuti bët réew mi duñu ko joxati sàcc yi fenkat yi workat yi ñu dul wax dëgg du leen ko joxati nan ko jox doomu daara yi ñu maa defar jikkoy defar réew mi bu ñu bëgg réew mi avancé te loolu moo bari si réew mi moo tax El Hadj Diouf maa ngi koy wax rek ne ko moom xam naa du nekk président de la République yàlla incha allah daa rëccoon a jàll premier tour mooy deuxième tour bi ñëwee moom mënut jàll kon loolu mënoon naa leen ko wax en tout cas di rafetlu bu baax a baax jataay bi di leen sant di leen gërëm di wax na ni ñun position bi ñu nekk fi la ñu nekk tey fi la ñu nekk ëllëg ànd ak parti wala ànd ak coalition du tax ñu bañ wax dëgg askani moo ñu gënal parti moo ñu gën a coalition ci firnde li mooy bi nga xamante ni tey jii baar nañ ma candidat ñu jot a jàll bu doon ñaar fukk fukk yëpp ñëw sama kër ba ci nguur gi yónni na fi Moustapha Ba ministre de finance Amadou Ba bëggoon fee ñëw maa ko joxoon ngànt mais ki nga xamante ni mooy waa PUR nga xamante ne jafe-jafe yi amoon nag askan wi ñoom ñoo ko taxoon ñoom ñëw nañ fii sama kër seet si ma kon ginnaaw jàmm te ku xam na ni waa ñoom ñi ma gën a am ak ñoom ay jafe-jafe moo tax dugguma yeewi askan wi seen candidat ñëw na fi ànd ak Cheikh Tidiane Youm ak Baara ñu ñëw fii may leen fii kër Serigne Moussa Fall kër Serigne Cheikh Tidiane la man doomu daara laa kon tàllal naa leen loxo pour que maanaam ñu bokk waxtaan xool li gën ci réew mi ñu def ku mën a wax ak ñooñu ñooñu mën a wax ak yow fàtte démb askan ak ñeneen ñi nga xamante ni seen intérêt bopp ñoo tax ñuy wax man réew mi tax may wax tàllal naa loxo ñëpp pour ànd ak ñoom sof ñi nga xam dañoo bëgg contination te bëgguma continuation Macky Sall laa mënut a mu fi teg ëllëg nag xamaguma ko waaye jëmmi Macky Sall moom du ma ànd ak moom tey du ma ànd ak moom ëllëg xeex naa ko ba mu daanu te dinaa ko ne du ko xeex ba mu génn réew mi. kam fay teg nag xaw ma ko ëllëg ubbi naa samay buntu pour ñëpp mais li ma am solo daal mooy Ousmane sonk bu fekkonte ne nekk na candidat Cheikh Abdou Badoli du nekk candidat dinaa ko jàppale 100 pour cent waaye bu ko nee nekk candidat dinaa ko seetaat c'est vraiment jërë nga jëf la merci